tey nag ñu waxtaane moom ci nga xam ne jàmbaaru Serigne Béthio bi muy kan soxna Aida Saliou ngeen bokk turandoo ngeen ñaar soxna ayda muy soxna ayda ngeen bokk itam cofeel ngeen bëgg muy Serigne Saliou ñu gis ne yoonu Serigne Touba bi yoonu Serigne Saliou bi macha allah fi Serigne Béthio bàyyoon Serigne Saliou muy liggéey gis nañ macha allah soxna Aida Saliou soxna Aida Diallo mu Serigne Béthio mu ngi ci yoon boobu ba léegi tey nag yow ngay wax lu baax ngeen bokk lépp lan nga gisee eh, soxna Aida Saliou mu Serigne Béthio ci liggéey bi. jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou di ñaanal Serigne Cheikh moom Serigne Saliou yàlla na fi yàgg te wér. amiin Mbacke. waaye noonu laay duggee ci ñëpp. fu mhm. kilifa diine kilifa aada nekk. Mhm. soxna yi daa ngi lay ziar. la mhm. jox sa wàccuwaay. di ñaan yàlla weer wi nga xam ne mooy weeru yërmande weeru mbaax. ñu wor ko fanweeri fan ba naan ay benn bis a ñu dese. wala ay seconde ñu dese. ñuy ñaan ci darajey Serigne Saliou. ci darajay ku tedd ki yàlla nañu yàlla defal jàmm ku fekkee ren yàlla nga fekke déwén te boo ko fekkee yàlla nga ko taal yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm delloo si xol yi delloo si xel yi ñu nekk ci lalu hôpital yi suñu borom yëkkati leen ñu nekk ci kaso yàlla génne leen bu kenn am jafe-jafe te macha allah yaay booy ñaan gi yal na yàlla yal na yàlla def mu dal bu baax a baax ni nga doon ñaanee muy dal macha allah parce que da nga jubóog ñu borom ba loo wax yàlla ne waaw ak Serigne Saliou mais tey ñu ñëw rek ci benn facette muy Soxna Diallo mu Serigne Béthio gis nañ macha allah ñëppay def social mais social yi muy def dafa ala daw me li muy def ci suuf moo ëpp li muy def ci kaw parce que ñun du ñu wax le kenn ne gis nañ mais gis nañ ne chaque vendredi day doble ko ay milliards pour def ko ci social tey lan nga ko gisee. waaw wax nga wax ji soxna Ayda moom Cheikh Béthio. Mhm. soxna Ayda moom Cheikh Béthio Cheikh Béthio moom Sëñ Saliou. Mhm. ah Cheikh Béthio jël li mu jël teg ko ci loxoy soxna Aida. Mhm. waaye soxna Aida mate na ko dëgg yàlla mate na ko. Mhm. ndax nag sampub Serigne Saliou dafa day waar de. Mhm. sama waa ji daa mën lu ne. am ndefaram. ak ak ndimbaleem ku yeboo seetaan ko. ndax kat mooy dogali dogalam. te dogalam yi du ko soob fu ko neexut fu ko neex rek la koy. la koy soob Soxna Ndeye dafa bokk ci ñi nga xam ne ci wenaŋaani Serigne Saliou wi la bokk. Mhm. ndax nag oto bu amul moteur du daw. oto amul moteur. du daw loolu da dëgg la léegi loo bu wax foofu. Cheikh Béthio mooy oto bi. Mhm. waaye soxna Ayda mooy moteur bi. mooy oto bi. soxna Ayda ay moteur bi. kon de oto bi na daw force. léegi nag. Mhm. bu oto bi demee. Mhm. du tee moteur ba la mu mënoon da koy mën. est-ce que. Ah, waaw gis nga ñaan gu nangu. Mhm. ak tarbiya bu wóor. Mhm. bu ko kenn fawe. est que. nga sëriñ Saliou boo ko nekkalee lay jox matériel matérielu sëriñ Saliou bi nag du jeex du fay du ràgg du tuuti ci sama bopp bi laa ko ni ma sëriñ Saliou def. ak ni ma sëriñ Saliou dimbalee. ba suñu génnee ak ku mi tar tar tar. soo demee vaar soxna Aida moom sëñ Saliou mii nekk vaillante mm-hmm. mooy dem waar vaar mm-hmm. may dem nag mm-hmm. soxna Aida moom Cheikh Béthio dafa tombeeg mu liggéeyal Cheikh Béthio liggéey bu nangu Cheikh Béthio lépp lu mu am sëriñ Saliou wa ko ko jox waaye ba ko ko sëriñ Saliou joxe it moom it bég ga mu bég ci soxna Aida ci ay kàddoom yu nuy dégg àdduna yëpp di ko dégg li ma dégg la ñëpp dégg ay vidéo la ñuy déglu dëgg la ay fay ci àdduna ba mu des kàddu kon boog dañoo woor. <laughs> ay weer. Mhm. kan moom moom koor gi. yàlla suñu borom moom mi nu may nooy. Mhm. may ñu kàttan may nu wér. Mhm. ba nu taal ko. dëgg waaye ba nu ko tale dañu koo defee sunu bëgg. ak sunu tal. ci sama jëmm ju tedd ci. muy kat sëriñ Saliou mi ma defar. lu nday defut ci man bàyyi defu ko ci man. ndax ba ma ko yaakaaree tey bëgg koog tey ànd ak moom mu dëggu ci man ma di ko doxee di ko waxee aw ma ci tànk ginnaaw mukk moo tax sama waa ji ku làngook moom tamit dëgg rek ci yow nga dox ko liggéey ko ah boo bayee tool bi di nga góob te boo góobee di nga jariñu loolu nag moo dal soxna Aida soxna dafa liggéey dafa liggéeyal Cheikh Béthio ndax ku fekkee jamonoy Cheikh bi gis na soxna Aida takkaayoo woon. Mhm. laxasoo waale ko. Mhm. jéeg bu ne war nga koo wut. Mhm. man nag saykat laa. <clears throat> fa ma nekkoon ca ba may tuut ba léegi. ma xam ñaanu borom kër gu daal nu muy def foofu soxna. man de saa yu ma jàkkee. su ma nee borom kër gu baax ki na ma ñaanal daf may ñaanal bu ma ñaanee ñaan gi danaan réel day mel ni ma nekkoon ca ba may tuut ba nag ni falaane. kon. nii Cheikh Béthio def soxna Aida. Mhm. ak a mën a ne. dafa àndoon ak moom ca liggéey Serigne Saliou Ba di ko ca gunge ndax liggéey bu diis kenn rek mënu ko. Mhm. da ngay am kula koo soxla mu ne ci sa ginnaaw. nga xool njabootam gii. Mhm. ñii mu bokkaloon Cheikh sëñ bi. ñi mu bokkaloon kilifaam gi. ndeysaan ñëpp ànd ne ko yawa. waaw kon mbir ma yawa soxna ba door soxna Adja Saliou ndeysaan. xam nga na ni na ni bañ a xool li ne ci xol yi. di baña a xool li ne ci xel yi. day xool li mën a ne fa mu ne. <laughs> li mën a ne fa mu ne dëgg la. soxna mhm. de dama koo bëgg. Mhm. man de dama koo naw. Mhm. nii mu def ndox ngay. nii mu def njabootug sëñ Saliou gone yii. tout tànk yii. ah. sëñ Saliou du ko neenal de. man de daf maa neenalut. moo tax ma xam ne du ko neenal. te boolewul daraa ki wax. ngala nan ko ñaanal. Mhm. man damaa bëgg jàmbaar. Mhm. damaa bëgg ku baax. Mhm. damaa bëgg ku mën a def lu baax. damaa bëgg ku mën a. topp sëy ba àjjana. mag ñaa ko wax topp ndigalu borom kër. moo la yóbbu ba àjjana. te moom génnagul cër bi mi ngi ci de. kon ko yàlla defal jàmm. amiin na ko yàlla sàmm. yal na ko yàlla aar te aar nu. ci daraja yonent bi. Mhm. jàmbaar la de. jàmbaar la. ah ku gis liggéeyu jàmbaar. Mhm. loo xam ne buñ la ko tegoon doo ko attan. Mhm. góor attanu ko. góor attanu ko de. ah. ay at. ah coow li bëri trop. saa yu xëyee. muy gën a muy muy gën a góorgóorlu. yàlla na ko yàlla defal jàmm. na ko ñëpp ñaanal. na ko ñëpp ñaanal maman gis nga macha allah jot na mais li ma gën a gën gën a marqué ci soxna Aida ni mu fonke alxuraani karim. alxuraanu yàlla ji ni mu ko fonke ñaata kaamil lay wàcce li nga xam ne mooy Madinatu Salaam chaque vendredi bu pare encore xas xasida sëñ Bàmba yi jigéen ñu kuréel côté bi góor ñu kuréel côté bi te sëriñ Béthio tey loolu rek la fonkoon avant tout alxuraani karim ak berndeel ay nit ñu lekk ak fekk fu ne amul dara mu def fa dara taalibeem bi nga xam dafa ñëw jébbalu sax tey bu xoolee xool ñëw sa kër xam ne amoo dara dalay def nga nekk dara tey dimbala say mbokk dimbala say famille tey soxna si ñëw doxin doxin doxin boobu tey loolu tey yow lan nga ci wax. dama ne alxuraan dama ne Serigne Saliou kontaan na ci soxna Aida Saliou. Hmm? soxna Aida mu Cheikh Béthio. Hmm. Serigne kontaan na ci moom. est-ce hmm. loo def ren. def ko déwén def ko déwén. Serigne mën a fajal. boppam tool yu bëri trop. kenn koo mën a fajal boppam. nga fi lu taal. mu ne dégg Mm-hmm. lu coow li bari bari bari sëñ bi mm-hmm. matale na boppam fépp est que du lu ko kenn di fajal du ko lu ko kenn di jàmbatal gis nga boo nekkee ci moom mm-hmm. mu ne ci yow te buy ne ci yow day ne ci yow ba faw est-ce que damaa xam ma sëñ bi bi seytaane du ko làmboo nit ku bon du ko làmboo barki Serigne Saliou gawma loolu Serigne Saliou ku bon du ko làmboo te mbootum alxuraan yi soxna Aida mi ngi ci lu njëkk mi ngi ci lu mujj. wallaahi mi ngi ci lépp. mi ngi ci lu njëkk mi ngi ci lu mujj. mi ngi ci lu njëkk mi ngi ci lu mujj mi ngi ci lépp barke sëñ Saliou. est-ce que na góorgóorlu rek. Mhm. yàlla baax na yàlla baax na macha allah. Mhm. lu nu bokk kenn mënatu koo dindi. Mhm. man soxna Aida de. moom sëriñ Saliou mii. est-ce que. la reine de vaillante. bu mag képp ku ma xam ne. da ngaa bëgg sëriñ Saliou. man dama lay bëgg la sëriñ Saliou. barke sëriñ Saliou. man sëñ bi rek a ma ñor. sëñ bi rek man sëriñ Saliou rek laa bëgg. ñaanuma kenn. déedéet. wutiwuma dara. lu ma war a am Serigne Saliou defal na ma ko. dëgg la nga waaye ku Serigne Saliou am dinaa la téye ku bëgg Serigne Saliou ah, am na sax ñu lay man xam naa ne am na sax ñu lay naxee Serigne rek. man laa bëgg. bëgg soo ma naxee ci sëñ kon ku man xam naa la ku liggéey Serigne Saliou. Mm-hmm. bëgg Serigne Saliou. Mm-hmm. ak Cheikh Béthio. Oh. li mu defal Serigne Saliou. borom njurul. Mm-hmm. ak defal. eh. Hmm. dafa bëgg alali Cheikh Béthio. Mmh. bu ñu xamee tey bernde. bu ñu xamee bernde. kan la bu ñu xamee bernde. gis nga nit mën bu mu tee nga nangu sa mën waay. dëgg man damaa nangu. ne soxna yi de lii muy def. Mmh. njàmbaarte la ko defee jom la ko defee. Mmh. fulla la la ko defee ngor la ko defee. ndax damaa bëgg am ñu ne ci sama ginnaaw. naan soxna yi de Saliou mii kat. vaillantam gii mu ne. social am bii ne jàmbaar la ko defee damay nangu ñuy gis sama njàmbaarte moo tax may sonn ci jaam ñi ko damaa bëgg su ma gisee njàmbaarte bu waay dama koy bëgg. Mhm. fi mu nekk fala mhm. na gën a góorgóorlu. gis nga mbootum alxuraan daa làqu. wallaahi mooy gi njëkk mooy gi mujj. Mhm. man la soxnaay damatale na lépp. est-ce que soxnaay luñ koy dooleeti. alxuraan mu njëkk moo mujj moo ngi ci lépp